yi salaamaaleykum wa rahmatullah namoon nañ leen tey damay namantikoo gars yi tey làmb la Sam Production Sam moom c'est un ami c'est un frère yàlla na ko yàlla defal jàmm ak promoteur yëpp ah tey waa waa waa waa Lansar xew le ak waa ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais gaan bi laay njëkk a waxal ba pare grand naaj. waaw naaj alhamdulilah. na nga sant yàlla bu wér a wér. yaa ngi si jàmm. waaw baax baax. tey woor nga. non tey wóoruma. dina woor. non tey du bisu woor. non tey moom du bisu woor. dimanche dafa baax ci woor. non yeewu ndekki ba suur xëy suba laal kafe ak meew. waaw doo xëy nii rek ba mu neex la ni nga ni tey damay woor quoi. déedéet man moom woor bu mag bi rek. mag bi rek sax dama koy négocier bii passé onze laa ci am nga def. c'est su ma wooree man ba ay 11 heures yooyu damay xaw di commencer di miir quoi. da ngay miir damaa xaw a fekk bilimbaane quoi. waaw damay miir quoi man sama samay kii tàmmul xiif quoi. sa yaram moo ko tàmm. moo looloo tax quoi. sa yaram la tàmm. lekk naan rek. lekk ba suur lekk ba suur naan ba mandi kafre. waaw bërti bërti bajant waaw. mu ne weeru koor nan da ngay naan nem comme xar. laay sama néeg tëdd xam nga yeewu julli 2 heures tëddaat nelaw yeewu julli cinq heures tëddaat nelaw ba 6 heures ma génn doxantu. rey heure bi des ñëw ndogu noonu laa ko jàppoo waaw. après reer bi. reer bi ma dem entraînement ñëw su ma demee entraînement ñëw reer. sa koor neex na yeewu tëdd nelaw yeewu. tëdd nelaw yeewu. julli tëdd nelaw yeewu ndogu. ba heure lekk jot nga lekk jot bu desee heure yii nii nga xam ne naaj bi dem na yëpp dem na ma soo commencé dox ndànk génn jàmbasante gaay xel day dal xel dal waaw xel dal. léegi yow ki nga mujjee bëreel. dégg naa am na ñeneen ñoo ci war a teg. waaw man boo xoolee bi may dugg ci làmb bëriwul samay morom dama dugg rek commencé bëri samay mag tegale ci cinq personnes daan leen ñëw sama sixième combat a perdre ko après si laa ñëw jëlaat cinq tonnes quoi. dégg naa yi dañ lay daw. waaw loolu moom am na c'est que sàmm ngi toog a tëgg sama làmb mais booy bu mu ne ko kooku dafa naqaree bëri. loolu la ñuy wax booy boobu dafa naqaree bëri te man pourtant defaguma ci làmb dara. mais doo ko non yolomal amu fi booy boo yolomalee booy dañ lay yab. ngay bàyyi entraînement yi wàññi kattan toll ni man tuuti tuuti. loolu baaxul boo ñëwee dañ may fëkk mu jeex. Ah. waaw fëkk mu jeex la te loolu baax nga bëgg kan nga ci bëgg a teg. Youssou Ndour laa bëgg. nii nii moom laa bëgg moo la mën. kii maa mën maa ma ko mën ba mën ña koy toggal. billaahi wallaahi taalaa barke yàlla maa ko mën ba mën ña koy toggal. kii mën. waaye man du ma xale mag la moom am na jabar yow amoo jabar. man am naa jabar ak ñaari doom. ah ma dama si Youssou Ndour. maaleykum wa rahmatulah. eh bro eh, suma su ma neexee man man maala la yar. loolu moo am. ba ngay am ñaata at. ah Ndié fekk yaa yaa <laughs> yaa ngi ngeen baax daal léegi nga am ay sikkim comme man quoi. waaw noonu noonu la àdduna noonu la. grand comme man quoi yow da ma dépassé sax léegi man man maa sa booy léegi. ku xool xam ne yaay sama grand. mais maa ngi sa booy léegi. non yaay sama grand mu lépp mën na nekk comme ne mag sa mag mag sa mag mënul nekk. waaw ah, bu fekkee ñu ngi ngeen mais nga nekkee xale nag mën nga ma ràpp <laughs> bàyyi ma. gars yi bàyyi ma bàyyi noon waaw ma waa koñ ma ñu ngi si jàmm. a waa Géejawaay ah ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a man man man man booy Géejawaay laa man booy banlieue laa booy Géejawaay booy Pikine booy Grand Yoff Grand laa màggetee nag. waa loolu mo am loolu moo am nga yar ñu ñu juddandoo yow màggandoo at yow après noonu loolu mooy àdduna sax ndax nit ma mu dëkkee Gunaas juddoo fa màggee fa dama mujj dem Pikine sama papa am foofu kër c'est la vie loolu mooy àdduna. mais alors nga jógee ci combat bu am solo yow Mbaye Diouf mais gars yi gars loolu du combat. waaw loolu du combat nañ ma jox combat. ah nee nañ da nga taamu fu fu nooy. wala boog adversaire nga manqué. waaw noonu la fa demee ndax man ba ma dalee bëre ba tey musuma bëre paa musuma bëre mag mais am na samay morom yoo xam ne na nañ fee mag mais man ma bëre fee benn yoon mag rek àdduna bépp di wax te làmb la. dañ ne du combat quoi. Samba ba mu si tool dafa may sens keneen ak keneen noonu. yaa ngi dégg kon làmb Bombardier bu ko neexoon du bëri ñoom Balla Gaye xam nga mais làmb moo demee noonu ñun tey jii dañ toll maa boo xam ne dañ dem benn instant boo dañu bëgg bëre ñun xam nga te noonu la fay demee. mais ñan ñooy adversaire. adversaire bari na du jeex si làmb. man de dama bëgg nga tudd ñaar. non yow tuddal. non man du ma tudd moom. ndax tudd naa Mour Anta. Mour Anta bu kees maa ngi koy tudd ba ba tey maa ngi laaj sama grand sama lépp la. làmb la rek bëgg a moom. kon kees la nekk rek lolu booy bu ñëw da defal bagage. waaw moo doon bëgg a moom ndax moom grand frère la dama bëgg a moom rek. ak kan Mor Anta Zarko. Zarko laa la bëggoon jël la may la Zarko su ma mayee ma jël. Zarko temps dafa tàng nag de. Zarko États-Unis la dem. fee France def fa cinq ans xaw ma ñu toj làmb ji bu ñëwee war nañu mën a bëre ñun ñaari victoire dafa am. booy yi mënuñu ko de. ah na bëre booy yi nga xool. booy yi mënuñu ko de. waxuma sax booy na jël na ma jël nga xool su ma jëlee nga xam lépp dëgg la. kon boobu neex na la boobu moom dàqa sax. ñaar yooyu daal ñoo la gën a intéressé. ñoom gën a neex. non day am. jeex na jaayef. eh Max. na nga def. nice. waaw est-ce que muus na. waaw. ay jàmba. sant ko teel a dëgg rek. ay concentré wu. waaw. alma de maa ngi dérangé de. waaw coow amul solo wool gaa ñu ñëw. kon naa ko mu préparé ah mi ngi mi ngi ci ñii samay xarit lañ man ñeme naa dugg fii ñeme naa dugg seen biir kër ñeme naa dugg seen koñ am lu fa xew gars yi naan non leen fa dem wóorul ak yooyu noonu may leen mais yéen da ngeen def ne ñooñu du ay nit. xamuñu ñii ay nit lañ de. ay nit lañ ay doomu aadama lañ. dëkk waaw bu ruus. dëkk cosaan dëkk boo xam ne sëñ Falloo ko sanc bind ci jàmm moo gën muy jàmm gën lii xew nag du jàmm gën kese àdduna bi yëpp la et le mo tout le monde en danger waaw parce que dañoo toll ci jamono jooju quoi di masaw lépp lu xew ci dëkk bi rek ñu ngi masaw ñëpp di jaale ñu ñàkk seen baxan ñëpp di wax nag àdduna noonu la. nan la leen def seen koñ xam naa am ngeen lu leen naqari trop ay rëccu mi ngi ciy am ba ba ki nga xamante ni sax mooy moom Maama Lamine am na lu ko métti. noonu la demee nag parce que métti na lool xam nga li naan des fois. dara day xew mais après doo xam fu muy mujj mais fu mu mujjee daa ëpp loxo waaw di masaw maama bu baax di ko naan gaynde yokkal jàmbaar góor góorgóorlu àdduna nii la eh, bul foog ne day neex rek ba lu métti du ñëw bul foog ne tamit day métti rek ba lu neex du ñëw yàlla moom bind doo jaam waaw nat du wees te képp kuy dund rek bis dina ñëw borom bi teg la loo attan di ko ñaanal gaynde di ñaanal Sérif barki maam Serap Fall Baay Fall di wax lépp lu mës a defal nit ci lu baax muy lu muy lu nëbb muy lu feeñ yàlla na koy yàlla wallu loolu yàlla na ko fekk si si biir. laaj boo xam dama la koy laaj gars yi des fois duñ ko ñeme mais man xam nga man dama leen ñeme man ak yéen non c'est la famille. mais gars yi di wax naan violence bi ci seen côté gars yi dañu war a kuul gars yi dañu war a wàññi mais du ñëpp ay benn benn ñaar rek la mais léegi loolu nan ngeen mën a def ba régler ko ci seen biir ak seen quartier. parfaitement ah, ñi fa dëkkul li ñuy wax absolument lu mën a nekk la yàlla mooy def loolu xëy na yàlla moom mooy xool fenn rek def fa nit ñi di leen séentoo dara mais loolu ñuy séentoo dara nekkul si ñun mais tamit day day toll foo xamante ne dañuy tàng ba def lu ñu warul def di di di wax gars yi nañ calmé waat neer yi nañ naxante te xam ne àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. léegi yéen ñëpp ay grand ngeen yi. non léegi nga doon dugg si làmb nga woon. sama copain si te ñeneen ak ñeneen. leer gis nga ñun ñëpp c'est la famille. dem na muy Fodé. mu nekk lu ñu naqari sama xarit ndeysaan kon loolu yëpp war na am ab jàngat. non ay jàngat la saa su ne rek yàlla tegal ñu misaal boo xamante ne dañ cee war a xëpp suñuy bët ndax Fodé kenn xamuloon lim doon mais bi mu demee lañ ko xam Serif nekkoon suñu biir nekk Baye Fall nattu bi dal ko gabu bokkoon si ñun yàlla jël ko ci ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana di masaw yaayam di masaw ay nijaayam ay naar gadda di masaw waa jaamu gën yëpp di wax tamit dee neexul ci xol quoi jur sa doom mu dee ci anam boo xamante ne neexu waaw parce que kenn ñaanu loolu yàlla Serif ñaanu ko yàlla keneen ak keneen noonu xëy na yàlla moom moo ko bëggee noonu eh, di ko ñaanal gaayen yàlla ko yàlla yërëm xaar waxtaan seen biir pour gars gën a dal parce que niñ leen di tudd incha allah ñu ngi si cat topp leen waaw billaay gis nga ñun moom cata ñu xaw a ñun ak cat ñu dañoo sol moo cat <laughs> mais di masaw rek gaayen di wax yàlla ñu cat seexlu yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla suturaal ñu suñ combat ñaam yëpp yàlla may ñu daam comme eh. yàlla leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp man je suis jàmm gën loolu nag doo comprendre yow. billaay aga maa comprendre. xam naa ne tu es le <laughs> champion fils de Max mi ngi noonu ak waa Lansar Tidiane sama copain bi ma bàyyi sama copain sama ancien copain <laughs> ah waa a ngi nii samay samay copain a ngi nii ah ma di waaj xale bu am avenir la ci làmb ñu dem seeti adversaire yow grand a waaw gis nga noonu la war a demee gars yi daw man dama laa bëgg. gars yi daw maa la raw bilaay maa la gën a bëgg. bilaay maa la gën a bëgg. barki Seydina Mohamed. mais yàlla baax na. bilaay mbër yey daw rek. maa ngi ñaan yàlla leen sutural ma rek. xëy na xëj bu dagul dik wey. tey boo ko jugee sa max ngay da ngay romb foofu. incha allah bugg naa romb foofu bugg naa xool ñeneen ñu dul ñii sax. bilaay walaay. lan la laaj. non lan bu la xool xam ne mbër nga. waaw lan la laaj. dal tey rek. waaw dal tey rek xam naa ne moom dina bëre incha allah maa ñaan ñëpp ñu ñaanal ma waa ñaanal waaw ñaanal ma daan laa waaw gis nga defal loolu yow la nga daan amiin waaye kontaan naa naka nga def yow eh eh waay wa kay ma naka la non booy bi mel ni ku tiit non tiit kii du ma moom di tiit nag xanaa gisoo kii muy def ci mbabat bi bu mag xam nga ko man bu baax a baax. ko fat fat lay def. day leer. nii waaw. ah kii du sax morom yow mën ngay jël ngay jël kii. yow da laa xool. maa moom ñoo mujjee bu. Eh. ñoom. yow daan fii mu may laaj. kan moo ko dóor mu daan. Jumay mu daan moom laa daan mu may laaj. may ma waaw eh, kii ko dóor mu daanu ma daan ko. nokk ko ba muy a dee daan ko. man da ngaa dóor mu daanu. waaye kii mu koy dóor waaw waaw maa ngi boo jaaw moo ma daan moom mu daali ko par affaire bi. a ma waaw xam naa xam naa loolu mais ah, may ma a may saa dama lay bu ma lay ñaan saa dama lay may boos mais dama fi tuus kenn xamu la. may chance may chance nee na mu lay may ñaar booy booy jaxaaw ka duma ko fi da ngaa dóor mu daanu. mu ne day ñaan chance di la ma ñaan bës. waaw xam nga maa ngi woo fan si xam nga di féliciter sama boy bi R5 daan xam di wax ni xam rek gars nañ jël. laaj bi d'accord dañ kaa jox sam avance ba mu mu d'accord ma fi dem jëli. waaw combat la xam nga waaw waaw wax quoi nañ ñëw ñu bëre. yooyu maire yi amu ko combat non ba léegi nii booy jaxaar ba ma ko daane ba léegi koo wax ñaar dañuy dóoraate wala lii bàyyi naa dóore nañ ñëw ñu bëre waaw waaw di wax ne xam nga na gaa yëpp ñëw ñi ngi sant waa Caaroy waa Biafra xam nga di sant suñu booy ñuy jàppale ñoon maa Abdou ñoom ñëpp ñoon Babacar Sall ñoon nees de xam nga di di ñaanal fii sa match yàlla na yàlla may ndam xam di ñaanal booy booy booy booy fii sa Euh, boy Sadio yàlla ko yàlla may ndam di ñaanal R5 yàlla ko ndam li jik Tigre bu Lansar yàlla ko yàlla may ndam amiin amiin amiin yaa nga am ndam dañuy am ndam barki si du ma daan kenn yow eh, eh. yow ma may la ñaari tànk sa diggante yàlla sama diggante ñoom barki Seydina boy maa war a jël eh man boy maa war a jël billaay wallaay taala maa ngi ñoom laamu la boy yëpp maa ngi ñoom laamu la sama gaay yaa le xoole eh. gaay yaa le booy dañ ma jël. billaay wallaay na booy jël. xanaa doom booy bu ñu jëlee gisu billaay wallaay wa taala man ngay wax xanaa da ngaa doom. billaay wallaay ñoo leen doole. doole ma sax nañ ma jël. man ngay wax man damaa dof man. non maa ngi jégalu maa xam naa la. dinaa cali cali R5 ko jar. billaay wallaay oto yu tuuti yooyu. R5 oto yu tuuti mooy doon nag oto bu mag. R5 ki mu daan kooku da nga ragal. instant yii nii nañ ñu booy bi yàlla xam na ne xamoon nañ ni muy daanoo xamoon nañu day tëdd. yow nag yow sa bopp de. barki Serigne Bamba fils de mu ko indi lañ soxla. ay waat yi xamoo sa bopp nga naan. fils de Balla du caaxaan. fils de Balla moo la mën ñu bàyyi doom bàyyi R5. dañoo bàyyi soxna bàyyi doom ndax ah, na sonn de. barki Serigne Bamba tey kay damay gis madame Naas barki yàlla awa ñang seeri awa ñang billaay walaay ragaluma lool mais R5 bi nañ ko jox fils de Balla billaay walaay barki Serigne Touba yow amal jàmm rek waaye nag séeréer bi moo ma dugg quoi temps yi damay làkk séeréer rek. Mbadou man séeréer la ah waaw kon kay loolu neex na. benn côté. non loolu na sa nekk séeréer sax daa neex. fils de Batling. Hmm. Batling Sigi. waaw maa ngi la. am jàmm. maa ngi sant bu baax baax alhamdulilah. tey sa combat bi yow la. est-ce que xam nga fi nga dugg. non xam naa ko dañuy laal mbapat ak yooyu yëpp xam na xamante nañ baax a baax. ñeneen te ngeen moom. waaw xamal na dama gis ne. gars yi bëre mbapat ñoom dañuy ëpp lu ñuy boole ñeneen ñi nga xam duñu mbapatuñu dañuy daw ñuy compétir. parce que mbëri mbëri mbëri yi ñu war a bëreel fii ñoo ñuy daw. te ñoom duñu wàcc simple bi. moo tax il faut ñu jëlante ñu suñu biir bëre. chaque week yaa ngi simple. noonu la demee moo tax comme comme gars yi nanguñu ñoo jël ñu jëlante suñu biir biir bëre rek. yàlla tere yàlla tere di di am doole nekk xale. di xaar combat loolu du ma def yàlla xam na ko. Ah, wóorul man su ma amee baax na su ma baax na chaque week maa ngi sama 500 wala sama 1 million ñëw toog waaw dañuy sant yàlla baax ci côté boobu quoi. loolu moom moo gën a métti bëri ay dix vingt personnes. fuuf fuuf sax xam nga li benn combat la da bëri après nga daan wala daan la mu jeex mais ah. da ngay comité rek ñoo xam ne bu ñu ëpp doole ëpp leen doole xam nga nga nekk sa ñoom di dalante ak ñoom xam nga moo gën a métti fuuf mais nag teew li ñuy daj ci moo gën a métti fuuf yàlla xam na ko looy wax xale yi nekk ci làmb ji parce que réew mi yëngu na dégg nañ fi lu ne li mujjee xew ca Lansar ñooñu samay gaañ lañ waxtaan naa ak ñoom ki gaañu foofu yàlla yàlla yërëm ko jéggal koy bàkkaaram di wax ne ndogal la rek xam nga di wax ne ndogal la di wax ne sëñ nañ gën a góorgóorlu xam a xam nga seen seen liggéey bu baax a baax incha allah loolu rek a wax. Hmm. lamb neex na léegi. waaw naaj moom sant nañu wax neen. neexatul de. a ah, man maa ngi si yëg sama bopp. dañuy dawante. waaw loolu rek mooy ñenn ñi rek ñooy bëre. loolu rek mooy yow mënoo bëre mbapat mënoo bëre arène mbapat ba rek. voilà loolu rek mooy cat bi mais à part loolu wi ndax lamb ji neexaat. billaahi billaahi dafa mooy yoon de. mag ñi jëloon mag ñi ay njaaytin njaaytin amul combat war na mën a ñëw ñu bëre fii. yàlla combat lamb la alburi alburi daan fi bëgg ay combat rek ak ay waay waay na ñëw ñu bëre la dàq ko waaw mais gars yi waay rek lañ koy jox muy ray rek. alburi bu ñëwoon suba suba ngeen bëri. luy loolu pare naa ni ñu bëre. man naa seete alburi. jeex na bu ñëwoon léegi ñu bëre. jaajëf leen ko. sant Serigne Touba. waaw ñu si jàmm baax na sant yaa yow kontaan nga si ñëw sëñ Mountakha. waaw billahi ak si daa ñëw rek mu pili quoi. ñëw rek dëkk bi taw ndakaaru taw. waaw moo tax jëlee ndam bu am mbégte sax. bépp naqar bu ñu ko faat. waaw yàlla moo ko moo ko sëñ Touba may ndam sedd guy. waaw ñu bokk ñëpp waaw si doole Serigne Touba. a liggéey lépp waaw la dugal si moom. ah la <laughs> moo tax ma ko fi bàyyi ku jël avance am kay xam nga daw ma si moom dara. ak ñoom nekk si yoon di dem. waaw Casamance maa ngi leen nekk si yoon. waaw ñi ma daan daanu leen li ma bëre bërewu ko waaw mais lamb lamb mooy boole. waaw lii moom combat jàng la quoi ñëpp a ko fi bàyyi ma jël ko. waaw lu mu laaj lépp liggéey nañ si daal en tout cas daal war bi sulee li leer la wóor mooy bu ñu dalantee dina xam ne góor yàlla dëgg la dalanteel loolu am solo waaw. waaw ragaluma kenn maa mën ñëpp. est-ce que xam nga ne sama xarit nga mais dañuy mais man a yow duñu waxtaan lu bëri ko seetlu woo loolu. waaw loolu dëgg la moo tax loolu. xëy man bëgguma la sonal quoi billaay. waaw dëgg la yow moom dafa comme gars yi def booy fàtte yi. <laughs> man moom bëgguma la fàtte wax dëgg yàlla. waaw eh, ngeen jàngatee combat bi delloo ngeen ko bàyyi ngeen ko. combat ba. Modou Lo Ama Baldé. non loolu CNG ñu ko de. CNG moo ñu libéré pour ñu wut beneen combat après ba ba Modou ndax moo ne fa feebar. ba mu heure wéree dama dama defe ne woon combat boobu dootul amat. ah dina am de fekk ah ah si promoteur promoteur bi njëkk ne combat dootul amat. waaw ñu de sax ñu ngi préparé rek. waxtaan ngeen seeg moom li du du wax moom ndax ñun CNG mënuñ tënk comme avance ñu ne CNG CNG jo bindal nañu ne mënu mën nga wër combat ah dañu wër combat rek. waaw nañu foofu CNG moo leen tënk kayit yi fa ngeen ko signé woon date bi jot na nee leen mën ngeen jël beneen avance beneen combat ngeen bëri ko. mais est-ce que si promoteur bi yéen ñaar waxtaan ngeen ci combat boobu ak ban anam ngeen war a demee. non promoteur bi mu waxtaan ndax man promoteur ba combat bi yàqoo ma woo téléphone ne ma combat bi cat dugg na si. waaye xam ne li si moo tax moo tax waxtaan du si mën a am li si laxasoo bëri. lan moo ci laxasu. la ñu nekk combat spécial. booy euh, fils booy saay fils de Sadio booy Petersen booy Petersen moo ñu wan kanam. Fils saajo Sadio mooy nu wan ginnaaw ñi ngi léewtoo ñoom ñaar booy PDSN ñeme na ko de ñi ngi damante ay baaraam ñi ngi damante baaraam e, tël na ko jël na ko plaqué ko daan na ko Fils de Sadio daan na ko waxoon naa la da ngaa ñeme xale bi ndax na la daan na la ndax na la daan na sa tànk la jël rek kal nga daanu da la plaqué da koo plaqué xool ko wala fils saajo Sadio Boy Lansar a ngi noonu Boy Lansar la ndeysaan ñee ñooy ay supporteru fils de Sadio moom moo am noonu ndam waa Lansar ngi noonu léegi nag seen grand combat moo des seen grand combat moo des diggante Fils de Max ndeysaan Fils de Max mooy waaj a ñëw noonu. ndaanaan rek Fadam man ndaanaan laa dama bokk si làmb. ah. man xolal xam nga lan a wax. ñi ma soxla man. barki Seydina Mouhamadou Boy yi. dama kaa bàyyi ak làmb ji. arbitre bi dana prip ma dox latéral pour moom damaa ragal. ma sànni ko mu dal ko ma gis mu def nii nii la def gëmm ma ne kii ab tapet la xaaral ma daan ko dem su fekkoon guerrier la damay suul tànk dama koy dóor a dóor a dóor bi ay feem la damaa def une deux trois ma balancé sama loxo orienté yaramam moom bi ma koy dóor plaqué bi nii la def daa benn ma padd ko mu yaakaar na padd combat bi man da man gars yi dañoo tegoon ne moom rek mooy génn si àll bi man damay génn si àll bi di jël ay nag di am xaalis comme ñëpp lan ma waxul dëgg rek kii waruñu woon bëre man ak moom. gars yi xam nañ fi ma jëm neuf combats la am huit victoire neuf combats huit victoire. waaw ñëpp ñëpp rek. waaw sama boy koñ yi nag aw ma seen fay. e buura e, e, e buur e buur buur buur buur buur buur billaahi wallaahi baay baay barke Seydina Muhammad lépp yow la sama baay ne si kaw kaay la ñu dem ngeen jël ko mën nga toog rek waa Abdou kana Abdou kontaan naa si yow barke Seydina Muhammad kii sama mag sama xarit la billahi wallahi kii aw ma fayam barke Seydina Muhammad kii sama mag sama lépp la billahi wallahi billahi fépp lay ànd ak man yàlla baax na maa lay ziar kii waru bëri ay maa ngi lay maa ngi lay ba Maguette li a def nga benn constat ci làmb ji def nga benn constat ci xale yi ak li nga xam ne mujj na xew ci Lansar man nee naa si yéen laa bokk ba damay waxtaan ak ñoom ci lu bëri bëri ban conseil ngay jox xale yi pour ñu gën a téewaat làmb ji. gis nga Pape c'est une bonne question làmb dafa am ñu ko liggéey ba mu si fii te ñooñu ko liggéey di ay champion tey kenn du war a mujj yëpp sa muy réer xale yi nañu xam li ñu am lan la ñoom ñoom moom làmb ji te du ma wax làmb ji rek. mais population sénégalaise 70 pour cent yëpp ay jeunes lañu jeunes yi ñoo war a xam ne actuellement ñoom ñoo war a téye réew mi sur tous les plans nag mais bu ñu waxee ci làmb ji xale yi ku ci nekk war ngaa mën a doon koo xam ne yow yaa war a téye làmb moo tax man toujours xale yi bu ñuy bëre du ma pronostiqué damay ku si simeeku boo liggéeyee xam nga boo liggéeyul xam nga mais combat yi may gis ku jóg détermination yaay moom combat bi. seen combat bi xale bi booy Sadio Selimbone mbër feeñ na mbër feeñ na. c'est un futur champion. c'est un futur am na charisme bi am na macha allah nag nañ ko gën a encadrer rek mu xam li mu bëgg aussi déglu ay conseil di déglu loolu bu ko defee mun na sori ci làmb et puis dafa jël drapeau champion Xaaye Gueye sunu xarit sunu doomu dey mu jël drapeau yàlla na ko yàlla yërëm kon booy Sadio ñu koy féliciter combat bi ci digg géew bi aussi ñoom ñaar soree wuñu de même képp sañ-sañ yaa moom combat bi. benn laa lay laaj muy boo xamante ne man dama ko tuddee Ukraine ak Russie dama ko tuddee Iran Irak Modou Lo Ama Baldé tey jii ni man sama sañ-sañ ak man sama bëgg-bëgg mooy combat boobu bu mu amati ndax liñ ci jot gis ci face à face ak ñoom seen ñoom lan nga ciy wax ci loolu gën a tamit soññ promoteur beeg mbër yi. non non mën naa am pap pap combat pap da ngeen ay xale rek mais face à face bu ne am na fi. mais du mbër yi de. mais ñii ànd ak mbër yi la moo tax dañ koy organiser rek. nañ ko organiser d'une manière boo xam ni ñaari mbër yi dinañ daje mën na nekk promoteur bi su bëggee mu nekk dina nekk huis am ci day am ci football segam football onze personnes jeu collectif segam asamaan ak combat individuel ñaari mbër yi. mais du ci biir stade bi ci biti la. ci biti boobu ñaari mbër yi mën leen a convaincre ñu ñëw rien que la presse ñaari mbër yi ak seen ñaari ménages loolu rek mën na am ñoom ñaari def face à face ñu bi combat la boo xam askan wi ñoo ko soxla de Ama Baldé dafa war a Modou Lo mooy roi des arènes yor li mbër yi bëgg faaw ama combat nga gis ne combat bu neex la boo sañoon mu taxaw bon man nag xam nga combat yëpp a neex ci man mais daal wax dëgg yàlla bëgg naa daal Ama Baldé Modou loo daal bëgg naa man man dama bëgg bu mu am non man dama bëgg mu am pour ñëpp am jàmm xam nga lu tax Modou Lo dafa yore li mbër yi bëgg te Ama aussi dafa war a yéeg parce que moo du dem ak moom noo non non loolu du ci dara loolu du ci dara loolu du ci dara <laughs> bu ma dugal le grand combat Sam Production moo ñu fi woote fils de Max moo ñu wan ginnaaw Max Mbargaan la tuddee boppam Batista numéro 2 écurie Abim Ndiaye moo ñu wan kanam fii sa max mooy diriger jàppante nañu combat bu ga ah, duma na ko daar dóor na ko jàpp na ko plaqué na ko fii sa max rëpp na ay lay laay lalla Batista numéro 2 daan na ko lay laay lalla il a brisé ay waay waay waay yàq na géntum fii sa max fii sa max bi jugaat bi mooy problème xoolal xoolal xoolal kii xoolal Abim Ndiaye tëdd na ci wetam di wax ak moom Abim Ndiaye moom mooy euh, moom mooy entraîneur eh eh door na policier bi laay laay la laa daa door policier policier bi wàcc jëlal dafa dóor policier bi policier bi wàcc dafa door policier policier bi wàcc laay lay la laa pamti pamtee tey nga tey nga am problème yow yaa wàcce policier bi <laughs> way sama nday yoo <laughs> wala la la la est-ce que da ngaa dóor man de dafa mel ni da ngaa dóor. maa mën ñëpp Linguère maa mën ñëpp maa mën ñëpp si kanam lay leer maa mën ñëpp. laa ilaaha illallaah. oh fils may na ko mbaa waay. ah ki la lay yàqal. am loolu la quoi. liggéey leen. ndeysaan xeex am na diggante policier yi ak waa Lansar dafa am benn xale bu ñu bëgg a yóbbu dafa bu ma xoon policier bi ci biir géew bi. moom la ñuy yóbbu noonu voilà kooku la